xibaar yi mbokk yi ci weeru juillet atum 2012 li ci gën a daal di fës. xeex ak ndóol gi kon ci réew mu Sénégal loolu mu yitte waa compagnie sucrière sénégalaise nag ñu jël jël xel seen saison te rek sax kon ay ay suuf ci gouvernement bu euh, kii di njiitu réew mi nag Macky Sall. ndox mi waroon na nag ñàkk ci ndakaaru ak li ko wër le 14 juillet bi ñu mal kon loolu du amati ndax liggéey yi ci autoroute à péage bi lañu ñu daal di dàq rek ba jëmmi jamono di dëgg nag jotal exploitation bu SDE ci biir xibaar yi. jàmm la ñuy sàkku ca Casamance waa Konrad Adenauer amal si jéego ñu fësal Afrique citoyenne ca gox ba ngir nag ñaaxale yi ak jigéen ñi ci boobule ponk jàmm ñaareelu xayu xibaari kon rek ak ganu xibaar yi di nag Mor Fadam war nag àddu rek te càmbar nag combat Gris Bordeaux ak di Modou Lô nag war a koon am nag niki rek dimanche bi ñu daal di dëgmal la xibaar yi mbokk yi bismillah daal leen ak jàmm nag SDE kon moo waroon amal ay liggéey ci autoroute à péage samedi na 14 juillet taxoon rek ko ñu génnee ab communiqué ngir nag artu Dakar ak banlieue ngir nag ñàkkum ndox mi ci boobule rek bés kon mu mel ni nag dañ ko rek toxal ndax waa Senelec ñu ngi safar rëq-rëq yi dina nag am rek tuuti nag gàllankoor ci ci ay gox nag ci mel ni nag Nord Nord Foire Ouest Foire ak sax Scat Urbam ñu teewlu kàddu Abdoul Bal njiital exploitation bu SDE ci micro Assane Diop liggéey bi SDE ak Eiffage ak APIX waroon def suba 14 juillet pour raccorder conduite bi jaar ci autoroute à péage euh, duñu ko defeti dañu ko fomm dañu ko dàq ba beneen ba jëmmi jamono lu tax parce que tey jii biig ci guddi euh, suñu usine bi nag euh, Kër Momar Sarr courant bi ko doon alimenté dafa dagg ci ci taw yi Senelec mu ngi koy defar pareegul tey ci après midi la war a war a pare moo tax tey jii dañu gën a concentré ci incident boobu donc mënuñu mënuñu euh, supporter tey manque manque d'eau tey jii ak suba ak ginnaaw suba moo tax travaux yooyu defatuñ ko ci beneen bés beneen période lañ koy def te dañ ko communiquer clients yi ak médias yi incha allah. waaw situation boobu moo ko waral parce que depuis démb donc am benn usine bu xam ne doxatul moo doon mooy produir ndox bi ñëw ci Dakar gox yooyu mooy euh, zone nord foire zone ouest foire benn partie Pikine benn partie banlieue Rufisque. ak euh, Scaturbam. suñu concertation ak Senelec am nañu yaakaar ni tey si guddi ndox mi dana jël distribution bi dina ñëwaat normalement parce que Senelec ñu ngi koy defar te dañu ne si après midi bi la ñuy pare si seen travaux réparation. kooku ne woon Abdoul Bal njiital exploitation bu waa SDE nag àddu koon ci micro Assane Diop ak kii di Libas Ndiir xibaar yi waa compagnie sucrière sénégalaise nag ñooy sàkku rek ci gouvernement bu yees bi ay suuf ngir nag ñu mën a rek ya yaatal seen liggéey ba nag wàññi rek kon ndóol gi fii ci réew ma Sénégal nag ñi fay liggéey ñoo feete seen njaxtalu campagne 2011 2012 nag ñu fa safa ak seen ab doléance ci micro Moussa Ousmane Diagne ak kii di Abdou Boye kon nag ay jafe-jafe sax ci li nga xamee ni moom moo di campagne 2011 2012 bi ba nag ñi nga xamee ni ñoo ko war a taxawu taxawu ko ba compagnie sucrière sénégalaise bay nag lu tolloo 94 000 tonnes ci li nga xame ni moo jëm ci wàlluk njàmbi suukar ñi nga xame ni nag ñoom ñoo di liggéeykat yooyu lañ doon feetal nag mu doon feet boo xam ni day waajal nag li nga xamee ni rek moom moo di jeexalu campagne bi ñi nag di intersyndical bi wax nag ak ki nga xamee ni moo di kilifa gi ngir nag mu xoolaat bu baax liggéey bi nga xamee ni moom la liggéeykat yi di def ngir ñu am ci ndàmpaay yi. wax naa si pour prime de production bi parce que boo xoolee tey euh, département yëpp am nañu ay cent cent mu des usine bi usine bi lu tax amu ko euh, panne yi donc euh, du coobare travailleurs yi ma ñaax direction bi ñu seetaat seen kii parce que ñoom bu doon ñoom rek agsi nañ ci leneen lii mooy que prime de xam nañ ñëpp location yi yokk na donc depuis trente ans changé wul. yaakaar naa ni boo évaluer tey coût bi war nañ yokk euh, njëgu euh, location yi prime de logement bi war na changer leen li mooy que suñu chef de chantier aussi euh, naam que di ay diplômé lañu mais boo xoolee dese nañu ba léegi loo xam ne war nañ leen ko defal coupeurs yi planteurs yi aussi seen liggéey dafa bare yaakaar ni war nañ leen seetaat Euh, yokk seen salaire yokk seen ki wàññi seen euh, coono bi. kii nag di directeur général bi ci kàddu nag ki nga xamee ni moom moo di DRH am ni daal li jëm ci wàllug euh, liggéeykat yi moom daan ci taxaw waaye nag seen doléance dafa jëm ci nguur gi bees gi ngir nag mu jox leen yeneen suuf ngir ñu mën ko jëfandikoo. usine bi bu ñu ko sosee léegi am na ñeenti fukki at tollu na màgg na tollu na ci fu nga xam ne dafa war a régénérer et lu ñu mën a def mooy defar suukar tey lu ñuy defar ci suukar doyul euh, consommation Sénégal e ñu bëgg aussi suñu réew continuer di garder richesse am devise yi di bañ a génn et ñu am kattan yokk suñu production euh, investir nañu lu mot euh, soixante milliards def ko ci usine bi côté technique bi waaye usine fokk ñu indil ko kaan pour mu mën a liggéey suukar waaye dañoo confronté wu ci problème suuf si te suuf yu ñuy ñaan ñun tey nekkul ay suuf yi nga xam ne ay nit a siy béy euh, ñu bëgg leen génnee suuf si ñuy suuf si ñuy ñaan tey ñu bëgg ko liggéey fii ci réew mi ci dëkk bi ñun rek ñoo ko mën a liggéey ndaxte suuf ay sable la bu ngeen xoolee sax ñun ay israélien la ñuy liggéeyee fii parce que goutte à la ñuy def. suuf soosu bu ñu si deful kaan amul njëriñ. feet bu mag bi nga xamee ni nag kilifa yi nga xamee ñoo ŋànk département bi ak responsable compagnie sucrière ak ay troupe théâtrale ñoom ñëpp sax ñëwoon nañ si te li ci gën a fees rek moom moo di xeexu fraude bi nga xamee ni doon na loo xam ne day nasaxal usine bi. jaajëf Moussa Ousmane Diagne comme comme nag ba léegi rek ci wàllu napp gi bi yoon nag essence moo manqué ngir nag gaal yi mën a rek dem daal di dem géej nag lu ñu mel am ginnaaw fukki fan tax nag ñu si yëngu rek nag am gàllankoor ñu si ñax nag njiit yi rek te àddu it jëmale ci wàllu gilet de sauvetage yi soxna Ndeye Adam Touré ci ndimbalu Pape Samb. ñaar demuñu géej fukki fan ak ñaar ñu am jafe-jafe ngir joxe dépense seen biir kër. li ko waral nag lenn la nappkat yi gisatuñu essence bu ñu mën a def seeni gaal bés bu jot ñu xëy daje ca plage Soumbédioune di xaar ñu ne leen essence am na ci station yi. ñun xamul daal lu mu demee essence bi tey ñu fii euh, xeex xaw na fi parce que kenn ma gaal yi kenn mënatul dem géej. kenn waxuñu dara dañ ne ne daal essence amul. station yi ñetti station ngi fii amul essence. à un moment donné ma laajte benn waaye ma ne waa lu waral essence bi manqué nii. ñu ne ma parce que poudre bi ñu ko war a mélangé moo amul benn pompiste moom wax loolu. ñenn ci ñoom ngir bañ a di xoole bañ a def lenn ñuy jël essance bi ñuy def ci woto yi jaxase ko ak huile moteur ngir mën koo def seen i gaal waaye jëf yu ni mel di jural jafe-jafe yenn nappkat yi. ça dépend boo ko mënee doser boo ko mënul doser nag mun na yàq sa machine. baaxul parce que am na benn période boo xam ne andi woon na problème problème yi mu indi mooy. ba essance amaatee une semaine lañ si teg machine yu bari ñu ngi kalaate yi di yàq ay piston yi di yàq leen ngay def ay panneau ay panneau cent mille soixante quinze mille. ñenn ci nappkat yi nga xam ni jotoon nañu dese tuuti essence ñoom ñemewuñoo dem fu sori ci géej gi ndax dànkaafu jëwriñ bi ñu dénk wàllu napp gi Pape Diouf di xamle ni sol gilet de sauvetage léegi lu obligatoire la ci nappkat bu ne. lu ko mooy daañu nangu sa gaal ba noppi nga wer sa xaalis mu di dogal bu nappkat yi rafetlu naam su dee. nañu andi sile ñu tekk ci teeru bu nekk fépp foo xamante ne teeru nekk na fa ay mool nekk fa ñu andi ay sile yi ñu wax ne ñu ko jaay bu ko jaayee te kenn jundul nag boobaa soo nga soo ko laa jàppe fii kenn solu fi gilet am na nag ñu yóbbu seen gilet si biir gaal teg ko si am na ñoo xam ne nag sanction yi moom bu dalee nga gis jule yi génn man ànd naa si kañ parce que pour suñu suñu bakken la kañ man mi damay dégg dem géej te aw ma aw ma gilet yi ne li ñu bëgg mooy ñu wàññi njëgu gilet bi ndax ci jamono ji junni lay jar te ci ñoom ak charge yu ñu am ñoom ñëpp mënuñu jënd gilet yi ci lu soxal ñàkkum essence bi nappkat yi di ñaax nguur gi ñu fexe ba essence bi dellu siwaat lu ko may ñoom ne ñu fese nañu baare tunnel bu corniche ouest bi jaajëf soxna Ndeyaram Touré benn ponk nag ci biir xibaar yi ñëpp booloo ngir nag jàmm ca diwaanu Casamance loolu moo tënku rek ci numéro 25 bu Afrique citoyenne mu di kon après bande dessinée bu waa fondation Konrad Adenauer daal di nag amal ñu fësal ko nag ca Ziguinchor ngir nag ñaax si rek xale yi ak soxna yi ñu teelu kàddu si Sididien sénateur la ñu tal association sénégalaise ak coopération décentralisée ci micro Cheikh Tidiane Cissé ak Kaba am la ñuy wax ci wolof ay nataal ci doxalinu réew mi euh, ci wàllu civisme wàllu démocratie euh, et cetera tey jii nag band dessinée bi ñu génnee muy nataal bi ñu def ci wàllu euh, Casamance la mooy jàmm ji nga xam ni ñëpp ñu ngi koy ut muy jàmmu Sénégal bu dee bind mi rek nit ñi ñi xam ñii xam duñu bare ndaxte ñi jàng tubaab barewuñu ñi jàng arab bi barewuñu ñi analphabète yi waaye bu dee ay nataal boo dee xool même boo jàngul dinga nga xam euh, li lu loolu sukkandiku lu mu sumb di xam donc euh, moom moo tax tubaab yi daan sax c'est très pédagogique euh, ñaar fukki numéro juróom bi liñ ci tënk moo di nañu nañu nañu waxtaan nañu nañu déggoo nañu balente donc waxtañu problème mu désenclavement bi am nañu yaakaar ni daal yàlla dinañu ubbil parce que euh, suma benn nit doon na wax ni 2012 dafay doon l'année des grandes révolutions kooku ne woon euh, Sidi Dieng nag sénateur ak njiital association sénégalaise ak coopération décentralisée xibaar cib gàttal ci wàllu wér-gu-yaram ndawal kuréelu SUTSAS nag moo teewoon ca gox bu Saint-Louis kon ca bët ganaaru réewum Sénégal rek moom moomal fa doxum nemeeku ngir rek daal di fay nag saytu waa kër docteur yi fa rek daal di si nekk nag moom Saliou fay Daaf ne nag l'hôpital bu Saint-Louis kon li ko wokk rek moom moo xuri kon yi nekk nag ci gox ko xaanu réewum Sénégal dañu si ñëwaat ci suñu xibaaru nasaraan yi ñi di yëngu ci wàllu urologie nag ñoo sumb rek ab ndaje kon fii ci Ndakaaru Urodac 2012 di nag ab rek lël bi ñuy amal nag at bu nekk rek kon ngir na ci xalaate rek ci boobule banqaasu wér gu yaram ñoo ci ak kii di Assane ci pleeral la wàllu formation tàggat ci distance jëm ci wàllu cancer prostate ak trouble yu nga xam ni moo am ci baa appareil urinaire lii bokk na ci solo gi nga xam ni journée scientifique Urodac 2012 dina ko am. urologie maanaam ci feebar yoo xam dafay laal mbir yox prostate jàpp feebar yu ñu tudd fistule maanaam jigéen yoo xam ne bu ñu ëmbee di imbi mën nañ ci jóge gaañ boo xam mën na tax seen kanam seen sanguwaay di jaat seen kanam. ak ñi nga xam ni itam dañoo am mbiri tële wala yeneen feebar yoo xam ne day tax góor ñi duñu mën di tuur ndox ak jigéen ñi nga xam duñu mën a téye seen sanguwaay. ay partenaires yu jóge bitim réew nit ki Afrique du Nord Grande-Bretagne ba ci États-Unis teew nañ fa ngir mën a jokkalante seen xam-xam digganteeg ñi nga xam ni ñoo nekk ci Sénégal. lu jógee euh, ay Maroc jógee Angleterre. jóge Amérique ak France euh, ki jiite ñu jóge France mooy général Houlgate moom moo nekk hôpitalu Val de Grâce mais itam amoon nañ fi professeur Desgrands-Champs dafa ñibbi démb mbétte ak kontante ki nga xam ni moo di directeur général hôpital général de Grand Yoff am na ko ci journée scientifique Irodac 2012 yi te wax na ni lii dina tax ba ñu gën a mën a indi xarala ci wàllu qualité enseignement wu ñi nga xam ni ñoo spécialisé ci wàllu urologie waaye it ñi nga xam ni ñoo am jàngoro ju jëm ci wàllu seen suuf di urologie dinañ gën a xam anam yañ leen di fajee. machine bii ngeen gis léegi ñu won ñu ko euh, maanaam day yokk xarañte rek. ci wàllu prise en charge patient yi mais surtout day gën a defar euh, formation bi nga xam ne euh, kàngam yi fi nekk ñu ngi koy jox étudiants euh, sénégale yi mais également étudiants yi nga xam ne ñu ngi jóge ci Afrique bi yëpp. rencontre urologique 2012 yi am na solo gu nga xam ni dina tax ñi nga xam ni ñooy waaye ñi yëngu ci wàllu wérgu yaram spécialisé wu ci wàllu urologie gën a am xarala lii lée ngir bénéfice ñi nga xam ni ñooy am jàngoro yu jóge ci seen suuf jërëjëf euh, Assane Diop gëstu jëmee nag ci wàllu rek liggéey yu ko seeri kon ci biir garage yi nag lu bari kon ci rek daal di laxasu sàcc agression ak yu ni mel nag kon tax rek joxuñ baaraamu tuuma ñoom nag apprenti yi nag mu mel ni kon buñ ne nag pot mi setul rek mën a fa jaar rek ne kon saabu bi moo daal di ñàkk mbañ a doyo ci ak kii di Alioune Kébé ci leeral. fagaru bala ngay faju dafa mel ni lu bëgg a jaadu ci biir garage yeeg arrêt car rapide yi ndax sàcc yeeg agresseurs yi. te nag balaa ñuy mën a def seeni ñaawteef élèves yi jàngi bañ a mbaa nit ñi yàkkamte xëy mbaa wàcc ñu womi leen. voilà agression yi di gën a sax agression yoo xam ne fu ñu toll nii moo gën si buuxante bi ci lañ lay jël ñu bëri seen gàddante ci carré sa carte. fii ak sama oto man ñu lay agressé non sama oto moom kenn ko kenn du ko si def. parce que du ma responsable bi man marché bi man maa ko yor loolu moom kenn ko def sama oto mais nag client yi tamit ñooy comprendre benn parce que ñëw nit di la agressé dimbali xam nga mu taxaw boole leen saf safaan bi yéen ñëpp di la yéen a yéen ñëpp a yem xam nga loolu tamit neexul si xol. arrêt car rapide yeeg garage yi doon foo xamante ni pickpocket yeeg agresseurs yi dañu fa taamu clients yi mënuñu fa ñàkk a bañ a dem foofe ñi leen di defee musiba yi nag ñoom clients yi joxoon nañ ci apprenti yi ak coxeur yi. dem ba jàpp na sax dafa am benn complicité parce que aussi en tant que nga ngay liggéeyee sa sa sa milieu de travail que ce nga nekk apprenti wala chauffeur waa nga ñit su yéegee sa oto nga identifier ko xam ne kii nii. bu fekkee ku jub la wala ku jubul nga dénoncé ko mais waroo toog ñit di jëf jëf ju ñaaw nga taxaw di si teg sa bët nga bañ ko dénoncer man foofu dama lay jàppee comme benn complice. kii di njiital coxeur yi nag weddi tuuma yooyu ba mu set ne moom pare na ñàkkante képp kuy bëgg a def ay ñaaw ñaawteef ci garage bi muy coxee. ci garage bi moom man maa ko jiite te képp koo xamante ne def nga fii fi saay saay man maa lay jëkk a signalé parce que loolu dañuy di ñoo xamante ne dañu la teg si yoon liggéey boo ñu ay béykat lañu nag tool yi moo manqué ndox moo tax ñëw Dakar du dugg si yor ay oto. du dugg di dawal bu ñuy yéegee même li ñuy bari bari ñiy toog ci gaz bi ma jiite nii bu ñuy yéegee bu midi ñuy wàcc ñi ci des dem loolu la ñu fay liggéeyee mais toogaay bi du dara parce que nun ku ñu gis koo xamante ne bokkoo suñu biir sax dañu lay daal di sëmbi ay coxeur sax am na fi mais que yi fi nekk duñu leen di ràññee dafa mel ni nag sikki bu yi ci agression yeeg càcc googu ñuy dund ci biir garage yi jeexagul gannaaw loolee nag beneen fen bu bees ñëw na feelu loole mooy borom scooter yi këf mbaa ñu agressé nit ñuy taxaw ci arrêt yi wala ñuy doxantu ci mbedd mi ñëwaat ci réewum Sénégal àddu nag ci wàllu sport wàllu lamb ji nag dimanche xam ngeen ko combat bu rëy diggante kii di Modou Lo ak Gris Bordeaux nag kon mu des rek ñaari fan nag tey ñu àddu rek jëmale nag ci wàllu poñ en commun rek maanaam kon li daal di boole ñaari yooyu leen mbër kon bu rek face ak bu diwaanu Parcelles Assainies ñoo ci ak kii di Adama Kandé Bordeaux ak Modou am na lu bari loo xam ne niroo nañu ko ku nekk ci ñoom ñaar fukk ak juróom-ñaari combat la am kon ñu jàpp ne ci fukk ak juróom-ñetteel combat bi la ñuy dem ci dimanche bi Gris ak Modou ku nekk moom mooy jiite écurie am Gris jiite écurie Fass Modou Lo di jiite écurie Rock Énergie leneen loo xam ne niroo nañu ko moom mooy dañuy neexal lamb ak seen chorégraphie maanaam seen tuus beneen exemple boo xam ne ràññee nañu ko ci ñoom ñaar lu ñu nurool mooy soloy combat dimanche bi Modou Lo dafa bëgg a confirmer jaloore yi nga xamante ne def na ko ci làmb ji Gris moom dafa fas yéene yóbbu fu gën a kawe écurie Fass. jamais 203. du gars loolu lañ wax. jamais 203. te loolu nga fas yéene appliqué. incha allah yàlla baax na yàlla yàlla may dalak fekke ba. lépp laay sóor muy xeex bi di bëre bi. combat bi c'est un combat très important pour man ma teg ko fii pour man mosuma bëre dafa ma ni sax man man. daan naa tel mbër ak tel mbër combat bi moo ma soxal intéressé ma nekk combat bu am importance ci man musuma préparer combat gu nii combat yi ma pare pour ma c'est des combats mais combat bi c'est sérieux pour moi. laata verdict dimanche bi nag ñaari camp yi ku nekk di waajal bu baax combat bi combat bi nga xamante ne ñëpp moom la ñuy xaar. ñëpp di ko xaar kon rek mu naroon nag am dimanche diggante kii di Gris Bordeaux ak Modou Lô nag ganu xibaar yi aju rek kon ci boobule rek euh, combat ngeen xam ko nag loolu mu nag yàgg rek daal di nag adu ci biir làmb Sénégal nekkoon fiit ab euh, champion Mor Fadam ma lay daal di bisimila ci xibaar yi. waaw maa ngi lay fay. alors xool nga sànq element bi ak Kandé ci wàllu rek poñu xaw daal boole ñaari mbër yi lan moo sa commentaire. sama commentaire mooy bari na ay enjeu quoi parce que ñoom ñaar kenn ku ci nekk euh, am na foo bëgg jëm àgg nañ sax. Mm-hmm. mais gën dañu war a gën a jëm ca kanam quoi. Mm-hmm. parce que Gris euh, moo jiite écurie Fass bi Moustapha Guèye tekkee moom moo fa nekk. Mm-hmm. moo jël trône bi ci Moustapha Guèye. léegi nag euh, jóge na ci combat boo xam ne combat bu. am solo la moom digganteem ak Baye Mandione mu am ci ndam. digganteem ak euh, Eumeu Sène combat ba gis nga ne mu méttee la ca giri bëre mosu ko bëre. mais yàlla daf mu ñàkk. mu ñëwaat ci Baye Mandione confirmé. kon kooku combat la boo xam ne combat bu neex la du Modou Lo moom it depuis que Balla Gaye daan ko ba léegi. Mm-hmm. Eh, gis nga ba mu bëree ak euh, Baye Mandione bëree ak. Euh, Lac de Guiers numéro de bëre bu métti leen bëri match nul moo tax booy xool ñoom ñaar seen bëre. tey nekk bëre boo xam ne bëre bu bëre bu métti lay doon. en tout cas bu métti lay doon. alors moom ngir nee na combat bi fii la ko teg ci bakkan bi alors ñu bëri nee nañ moom mooy daal di doon rek favori ci biir combat est-ce que yow yaa ngi ànd ak boobu point de vue. kan ci moom waaw euh, ci booy analyser. Mhm. moom ngay jox favori. est que moom moo jiitu ci làmb ji. moo féete mag ci côté encadrement it moo ëpp encadrement. mais Modou booy indi favori tamit man duma indi que favori boo xam bi bu bu yaatu la. xëy na booy partagé danga nga naan euh, cinquante deux cinquante huit wala cinquante trois cinquante sept. pour man favori lool lool amu ci quoi parce que Modou mën na daan Gris Bordeaux am na bëri bu ko daan te ñàkkul doole bu mën a daan Gris Bordeaux Gris nag moom it moo xaw ëpp doole Modou mais pas tellement du ëppeel doole goo xam ne gi damay ñëw rek taxañ la daan la déedéet loolu amul fa ci ñoom ñaar mm-hmm. ci seen diggante te Modou moo xaw a sàcc bëre moo xaw dàq bëre euh, Gris Bordeaux mm-hmm. waaw alors tey ñu bëri ñu xëy rek fësal ay tensions yi am foofu lay ci diwaanu écurie bu Fass. Mhm. est loolu bokk na ci ngir daal di rek déstabiliser kii di Gris Bordeaux ci boobu lay. tension yu mel diggante moom ak Balla Diouf maanaam. Mhm. waaw ñu bëri ñoo xalaatee ci journaux yi ne Balla Diouf maanaam dafa ànd ak euh, Modou loolu mel xaw a euh, naqari Gris Bordeaux ba sax neen nañ ko génnee ci écurie waa waa Fass bi est ce que loolu ab pexe rek ngir mën a déstabiliser aussi kii di Gris Bordeaux ci combat bi ñu bi ñu déggoon. non loolu yaakaar naa warul mën a indi benn stabilisation ci côté boobu ko parce que Fass yàgg nañu def ay combat yu mag. Hmm. Gris yàgg na def combat bu mag. kon defe naa lu mel noonu bu ci amee. Mhm. warul yàq dara ci moralam ci war li mu war a def ko loolu au daf ko war a gën a motiver. Mhm. parce que jàmbaar dëgg-dëgg balaa mën a xeex rek mu. am loo xam ne li am na loo xam ne dañu def ne daf lay néewal doole. Mhm. mais boo dee jàmbaar daf lay war a gën a yokk doole ko d'accord alors combat Gris Bordeaux Modou Lo dimanche la ñëpp euh, xam nañ ko ñu bëri nañu naan nag dina doon combat maanaam gladiateur. Mhm. est-ce que mun nañ xaarandi combat ci wàllu technique wala baga maanaam xeex bu métti wala sax ci wàllu maanaam mystique beeg euh, xarfa ku fa yëpp ci biir. bon gladiateur bi séntuwuma ko de trop. Mhm. dana am xeex. mais xeexu naxante lay doon quoi. parce que nekk fa di dóorante ay kii moom mën na ci am mais wut bunt lay doon quoi. parce que ñoom ñaar ñëpp euh, am na loolu Modou Lo du ko nangu parce que Modou am na facilité. jàpp taabu Gris Bordeaux dóor mu mën koo jàpp. te xeexu galaajateur boobu bu amee kenn mën na dóor morom ji mu àgg suuf. parce que boo xoolee def na fi ay kawo te loxoom diis na jëri tamit la même chose moo tax man stratégie la ñuy bëree quoi ci sama xel ku ci gën a nangoo nax sa morom soo tuul yaay jël ndam li quoi. jël ndam li waaw. alors moo des ba léegi rek ci wàllu combat bi rek après ci wàllu làmb ji gën ko rek daal di yaatal. Mhm. ci ginnaaw tuuti amoon na fi ay maanaam coow ci journaux yi. Mhm. jëm ci wàllu maanaam lu ñuy wax rek plafonnage euh, caché mhm. bëri. comme promoteur yi nee na ñoom du ñu weesoo ci cent millions. yemale ko rek ci soixante quinze millions est ce que yow ànd nga ci boobu gis-gis. ah non loolu xam nga moom du ma ci mën a ànd mais xam nga loo gis lu ne rek lu ne dafa am lu muy jar quoi. parce que promoteurs yi ñoom fu làmb ak ñoom ñoo ko fa àggalee. xëccoo ay combat ay defante ci seen biir yu di kenn ku ne di jéem a suufu sa moroom moo indi loolu. parce que euh, ñoom bu demee ba toog bu waxtaan ba ne dootuñu fay lu wees cent million xam naa ni sax daañu fay lu ko ëpp. mais mën nañ bañ a fay lan doon fay. Mm-hmm. mais loolu lépp mu ngi dépendre rek ci sponsor yi nga xam ne moom la ñuy am. mais ñoom li ñuy def na doon dëgg ci ñoom ñu wóolante bañ a andi ay kuubaa ci diggante seen diggante bu amee rek nit ñi daañu leen ree quoi parce que li ñuy wax mooy li ñuy wax waxu jekkadi la rek mais bu nu demee ba ci biir affaire bi du mën a sotti quoi parce que kenn ku ne da ngay xëcc jamale sa kanam te loolu euh, ànd dañu war a xool intérêt commun bi xool tamit intérêt làmb war nañ mën a yéene dem bay fay deux cent trois cent millions ci làmb mais loo gis lu ne rek ñu jaarale ko ci yoon lépp na tegu ci kaw dëgg waaw li nga xam ne mbir mi ba làmb ji moom la attan combat bi moom la jar ñu fay ko waaw bu ko defee rek kenn kuy waxaale combat ci ñoom si yenn seen yeneen morom yi bàyyi leen a combat boobu ba kooku dematul. Hmm. keneen boo ko mën a dugg. mais bu fekkee keneen ngi waxaale keneen jaar ci suuf naan kële man mën naa la fay nangam mais bu ko kenn yëgee booba du du jëm kanam ko d'accord du jëm kanam alors làmb bëri na fan yi fitna maanaam violence ba tax sax ay sponsor taxaw ne dañuy bàyyeekoo ci ci ci ci làmb ji. Hmm. est-ce que loolu bokk na ci ngir euh, suqali ëllëgu làmb bi ci Sénégal. non loolu moom man toujours dama koy dénoncer quoi dama koy ñaawlu parce que li ma gis dafay yàq rek du defar quoi surtout fan si club yi parce que làmb bu njëkk ay mbër ñoo doon xeex mais amateur daawul xeex amateur da daan solo ba jàkk ñëw seetaan si làmb suñuy temps ca la ca gannaaw a gannaaw làmb da daan fees man bëri naa fekk maam jamaan làmb ji dafa fees tell stade Demba Diop bëri naa fekk Moustapha Guèye stade de l'amitié dafa fees mais du woon ay fans club ay amateurs ñoo ñëwoon xëy na amoon na tuuti fans club mais bariwu ci woon. mais léegi li ci dugg mooy supporter de nawetaan yi ñoo ñëw bëgg a yàq làmb te loolu vraiment jëmul ko li ñuy def ca nawetaan bi bu ñu ko bëggee def ci làmb làmb affaire noble la affaire la bu xale suñu cosaan la. dañ ko defar ba mu agsi fii kon nag waruñu nangu ay nit jóge fële di ko yàq surtout xale mbër yi nga xam ne ñooy jóge jóge dama leen di wax ne leen du ngor. duy teggin du sutura ñu defaral la ndab ba mu jekk toggal la ba togg gi neex nga war a ñëw di lekk nga lekk di ci xëpp suuf loolu du yëfu nit parce que ñoom dañ leen defaral làmb ba mu agsi fii parce que bu doon te bu njëkk ñoom ñiy bëre tey ay million ay deuxième combat la ñuy bëree ak ay troisième komba hmm. kon bu leen yàlla defalee xéewal nga ñëw rek def benn combat ñaari combat mën a àgg fu xam ne say bàyyi àgguñu fa woon say moom àgguñu fa woon say mag àgguñu fa woon la war a sant yàlla jéem a rafetal loolu mais ñoom ku ci amul combat yaa ngi jooytu fu ne yaa ngi dem ci promoteur yi yaa ngi téléphoné ki dimbale ma ma am combat ñi ak yow ku ne di naan sama booy bi na bëri bu combat bi xasee ba taxaw mu mel ne ñaari ay noon yoo xam ne kenn xamul lu muy nuru mais du noonu da nga war a sant yàlla bi nga amee combat ñaanal sa adversaire yàlla may ko jàmm mën ngeen def nag ay show di xumbal di kii kenn ku ne mën na sa moroom bu ma la jàppee naa la def lii naa la def laa mais ne yem foofu bu làmb jaar ku lu waay mën a def sa morom nga def ko mu yem fa ku daan keneen kii fon morom di ñu joxante beneen yoon bu ko defee rek làmb ji day jëm kanam mais bu combat xasee ba taxaw rek mel ni supporters yi fële noonu yi ñuy ànd ak mbër yi nga xam ne ñu ci bari bëgg feeñ télévision rek moo tax surtout tamit télévision yi dama leen di ñaan que yenn action yi ñu di ko ban di wane parce que am na ñoom dañuy def dara pour wane wu ñu ko pour bëgg mbër ñi mi ñu ko pour gëm-gëm wala dara. dañ koy def pour télévision bi jël leen wane la ñu naan yow gis naa la ni nga def keroog nangam na yooyu ko buñ leen doon sàppee rek bañ leen kii dootoo gis keneen ku ko def. yu bari yu ni def bëgg ku leen film wane parce que am na ñoo xam ne dañu bëgg wane wu de trop te yooyu. amul amul sens quoi ci mu nekkoon kon rek euh, Mor Fadam doon euh, doon ñu càmbaral àddu rek ci combat bi nga xamante ne moo am na nit ki rek dimanche diggante kii di Gris Bordeaux ak Modou Lo alors œil du technicien rek ci boobule combat ngir tëj ci waxtaan bi rek. Mor hmm. Fadam hmm. ci tënk rek Mor Fadam Gris Bordeaux lan mooy point fort kii la mooy point faible kii. bon ñoom ñaar ñëpp xam nga dañoo am. Modou Lo foor na ci xeex bi Gris Bordeaux foor na ci xeex bi bon Gris euh, des fois dafay am problème bu songee parce que des fois day jël tànk mais na mu war a finition bi dafa ci am problème foofu bon Modou Lo nag euh, moom it am na rëpp bi muy def boo xam ne bii euh, loolu tam faible la ci si côté bu ci combat bi laaju loolu laaju ko ko quoi. Mhm. combat bi moom dafa laaj stratégie bu wóor bëre bu wóor. Mhm. ci ñoom ñaar ñëpp. Mhm. ku ci def erreur rek sa morom daan la ko. morom daan waaw. jërëjëf bu ko defee damay eh, nuyu waa RCSD di nuyu waa Sénégalais yëpp. di nuyu tamit sama benn frère eh, Pape Sakho bu doomu Ibrahima Sakho. dafa fasanteeg man coloré ngir waajur wa sunu baay Ibrahima Sakho may ñaan. wa Sénégal yëpp ñu ñaanal ko dolli ko ay xuloo yu bari parce que nit ku baax la woon. dañ daan jël ci moom lu baree bari ay références yoo xam ne ci waxtaanam. di si jariñu quoi kon bu mel ne lu mel nii bu amee rek. war naa sàkku ñu ñaanal ko lii ma sol moom moo ma ko jox fase ko ak man coloré mm-hmm. ngir bàyyam ba kon da mooy sant Pape Sakho bu baax a baax di sant tamit maire Rufisque comme ni ñu koy waxee eh, Badara Mamaya Sène di sant waa Guédiawaye yëpp ak waa Sénégal yëpp di ñaan rek ñu ñaan yàlla def jàmm ci réew mi mm-hmm. président bi nga xam ne moo fi nekk muy Macky Sall ñu ñaanal ko yàlla defal ko jàmm. et mission mu réussir ko. jaajëf et ñu bàyyi xulo yi ak wax yu sew yi ak wax yu amul solo yi. te nu mhm. jéem a liggéey Sénégal parce que loolu mooy njëriñu réew mi quoi. jaajëf mu nekkoon kon nag gànnu xibaar yi di rek Mor Fara na nu àddu nag ci wàllu combat Gris Bordeaux ak Modou Lo bi am nag ni ko rek dimanche bi ñu daal di dëgmal la ñu weel xibaar yi nag di ko rek yéexalee ko nag ak li ci ëttu yéenikaay yi mbokk yi tey nag ñu koy rek doo rekoon ak yéenikaay bii di rek di cey le journal moom nag mu ne rek élection député yi kon conseil constitutionnel rek mu daal di dëggal nag ay résultats yi fi cour d'appel fesaloon nag coalition bokk Benno Bokk Yaakaar moo jël rek raw gàddu gi nag mu am téeméeri 6 ak fukk fukk ak juróom-ñeent ci téeméer yi ak juróom fukk nag ci téeméer yi ak juróom fukk Macky am majorité sa ndaw pencum réewum Sénégal nag ngir rek mën a amal li ñuy wax nag ay réforme ginnaaw yéeni kaay ci le journal aju nag ci yéeni bi ñuy wax rek le populaire moom nag ne mën na na am sax ndax kon euh, kii rek doon jiital assemblée bàyyeekoo ci coalition Macky 2012 bi tax nag njiitu réew mi yegg ci deuxième tour bu élection njiitu euh, réew mi nag cadre yu APR ñoo si amal waxtaan te fas yéene nag baare yoon wi kii di euh, Moustapha Niass ginnaaw yéenekaay Le Populaire aju nag ci yéenekaay bi ñu wax nag Le Quotidien moom nag mu ne rek waaw kon ndax ca APR nañu ñu rek parti bi la ñu jiital balaa réew mi mu mel ni nag cadre APR yi ñoo rek daal di féewaloo kon gis-gis ak Macky Sall mi fi waxoon ne réew mi lay jiital balaa parti bi nag mu lu leer rek mooy waa APR kon président assemblée bi bàyyeekoo ci ñoom lañu ñu rek daal di bëgg. ginnaaw yéen i kaay le quotidien addu ci yéen i kaay le pays moom nag mu xëy rek fësal kon fukki kàngam yi seq rek di Macky Sall nag tey nag doxal nguurub euh, Sénégal Aminata Tall euh, ñu ne nag njiiteem doon na rek doon premier ministre Abdoul Mbaye jëwriñ ju njëkk ji Abdoul Aziz Mbaye njiital cabinet bu Macky Sall Aminata Touré yor wàllu yoon wi ak kii di Amadou Kane mbirum nag koppar it ak it ak ñeneen ak ñeneen fës rek kon ci xët bu njëkk bu yéen i kaay bi di le pays au ginnaaw li pays yi nag ñu àddu nag ci yéenekaay bu ñuy wax moom première ligne moom nag ma xëy rek fësal nag ñett rek ponk kon di rek les trois péchés ci wàllu li nga xamante ne nag moom mooy rek jëmee kon ci Macky ci giseem ak kii di euh, waa PDS nag bu euh, maître Abdoulaye Wade nag ñu àddu koon rek jëmee nag ci li ko rek daal di war a mën a gàllankoor na yooyu li giseem bokk ci nag gis-gis ak waa kit euh, waa PDS it waa it ay audit kon daal rek di fësal nag jëmale ko ci waa PDS nag ngir nag ñu càmbar seen alal bu dëppawul ak ci wàllu yoon fës ci yéenekaay bi ñuy wax première ligne ginnaaw yéenekaay première ligne nag addu rek ci yéenekaay bi ñuy wax l'observateur moom nag mu xëy rek fësal nag li làqu maanaam la face cachée ki nga xamante ne moom mooy bu Benoît Sambou di rek kon riñ ci gouvernement bu Abdoul mbay bu ñu turé bi Macky Sall nag mu ni daal ab enquête la ci amal ci boobu ne ministre nag ci wàllu mbéy mi ak wàllu équipement rural nañu nag moom amul sax li nga xamante ne moom mooy nag daal ca université Cheikh Anta Diop dafa daal di cartouché eh, ci njàngam amoon na it njiital atelier ci wàllu menuiserie ak it li tax rek mu daal di nag tàggoo woon ak soxnaam lépp rek kon fas yéenekaay bi di l'observateur ginnaaw yéenekaay l'Observateur addu nag ci benn yéenekaay ji bi yoon nag yéenekaay Libération moom xëy rek nag àddu nag jëmale rek ci wàllu kii di doomu fi nekkoon njiitu réewum Sénégal di rek euh, Karim Wade nag moom nag ak ay nga xamante ne moo fës ci wàllu nag enquête ci alal bu dëppawul ak yoon nag nañu nag moom daal dafa rek daal di nag euh, tuumal ki nga xamante ne nag moom mooy rek foofu foofule wala sax waa jabeer ay woto yëpp daal yoo xamante ne daal ñu ngi koy ping-pongé diggante moom ak kii di Jaber nag kon fës ci yéenekaay bi ñu wax Libération ginnaaw yéenekaay libération mbokk yi ñu dem nag ci beneen yéenekaay bi yoon di li xew moom nag mu xëy nag postal ñu rek li nga xamante ne moom moo daal daal di gàllankoor nag wàllu rek jéego jàmm ji foofule ca diwaanu Casamance mu bokk ci nag li nga xamante ne moom mooy rek Macky Sall mi tabb kii di rek kon Kambouge Diatta def ko nag ambassadeur ci wàllu jàmm ji loolu nag moo rek daal di nag xaajale waa Macky bi euh, libériens yi tamit Sierra Leone waa Guinée Bissau bokk rek ak li ñu wax nag gi daal di nag Euh, dakkal lu ñuy wax mën naa daari international ci kii di Kourouma Sané fas yéene kaay bi ñu wax li xew wa beneen yéene kaay bi yoon nag ci wàllu rek sport stade addu ci wàllu football nag fësal rek waajtaay gi ci wàllu JO 2012 diggante nag réewum Espagne ak réewum Sénégal nag nañu gaynde yi kon ñoo taxaw rek nag ngir nag jaamarloo ak ñi fi nekk rek champion d'Europe foofu le nag fës rek kon ci yéene bii di stade ginnaaw yéenekaay stade addu ci beneen yéenekaay ci wàllu rek euh, sport waaye nag bi yoon mbirum làmb nag ak yéenekaay sunu làmb nag moom mu xëy rek bësal nag li ruuse kon ci li war sax li war a ruusee nag ci ab défaite bi war nag am le 15 juillet ci combat diggante kii Gris Bordeaux ak Modou Lo nag mu ne kon daal crise moo daal di rek di nag euh, fës foofule ca waa fas nag wala sax Modou Lo nag mu fa rek daal di nag lañ fa ñàkkaar rek fayda kon naan ko rek dévaluer ci boobu nag addu ci wàllu crise bi am soo fële ca écurie Fass diggante nag ñoom mi daal Gris Bordeaux ak kii di Balla Diouf ñu jeexalee ak yéen kay bu ñuy wax Leewtoo moom nag mu xëyit àddu rek fësal nag naataalu kii di Gris Bordeaux bu waa Fass nag ñu daal ab kon euh, daal euh, féewaloo moo am foofule euh, ca écurie bu Fass moom nag Balla Diouf ne nag du teg tànkam benn yoon dimanche kon bi ca stade fu nga xamante ne nag wala Gris Bordeaux wala rek amalee combat ak ci di Modou xarañ Lo mu nekkoon la ci ëttu yéenikaay yi fii leen jaar nag ndarkepp xibaar yi ci kàllaamay ko ci baax ma cib yaatal yeneen ponk xibaar 19h la doon ak 20h ci kàllaamay français ak rek di Cheikh Dia bi mbokk yi jaa ngeen jëf ci seen teewlu asalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakaatu jàmm ak jàmm.